mu nekk ab mbir bu doy waar fa am ci diwaanu Thiès ca quartier ba ñuy wax ngent ca commissariat central ba xale bu góor bi la nga xam ne ay atam war naa toll ci ñeent fukki ak lu teg moom moo daal di rendi boppam moom nag bu ñu sukkandikoo ci témoin laataa moo reendi boppam benn xale boo xam ne ay atam toll na ci juróomi at la daal di jàpp ci loxo bëgg koo reendi nit ñi daal di ñëw daal di nangu xale ba moom nag mu daal di ñëw ba ci buntu police centrale bu nekk ca Ngent ca diwaanu Thiès mu daal di reendi boppam daal di daanu deret ja di law mu daal di mujj ñàkk bakkanam moom nag xamuñ lu tax mu daal di def mbir bi ni mel waaye nag xale ba la njëkkoon bëgg a reendi ñu daal di xale ba mu daal di far reendi boppam mbir ma nag tey ji la la am foofee ca diwaanu Thiès ca commissariat ba ñu wax Ngent mu nekk nag ab mbir bu doy waar boo xamante ne rek gis nañ ko jamono ji la Sénégal mu nekk ab fléau boo xamante ne rek daal dinañ koy nemmeeku mooy léegi bu fekkente ne sax rendi woo sa euh, bopp da gis nag ne nit ñi léegi daal rendi la ñu daal di jël waaye tey ji nag aw tuutee des mu daal di rendi xale boobu noonu waaye nag mujj gi ci boppam la daal dal ba tax nag jamono ji la gis nañ ko mu nekk ab mbir bu doy waar foofee ca diwaanu Thiès mu daal di am tey ji la ci alxames ji